asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nuyuwaat naa leen seen tur ak seen santa si beneen Tambambalu show gannaaw bu ma sante yàlla julli si yonant bi am ñëwaat leen fii nag ah, si beneen Tambambalu show comme niñ ko dee defee saa yi nekk rek seen xarit Dieng Njoro ñambeeg maam xaasim ak seen bu doomi ndeyam ak baayam di leen ko defal saa yi nekk rek a ah, tey nag ah tey nag dañ ne Tambambalu show spécial mbal show dañ wax am dañ warona am gan ah, moy ki nga xamantene boy biñ xamantene dañ ko fi tuumaaloon ne dafa saccé ñaari xalé ak ñaari xal waaye loolu noonu ah, mu juta antu sax because am uh, loolu noonu nekkutoon lu happen so ton lolu nonu so yaayam lañ warona am fi nak tay waye munta ñëw ngir taw bi nak motax ñu génn ci biti rek am di leen wan ne day taw rek ak ci gambia bi fi gis ngeen ko ñu bari expect gu ñu woon ne tey dafa taw suma maas yi ñu ngi nii sax xala tooy because ah, amuñ palansoor gis ngeen béréb bi yëpp a ngi tooy gis ngeen ko suuf baa ngi commencé di tooy moto yaa ngi daw yéen a ko gisandoor gis ngeen ko maa ngi fii nag ci fi nga xamante ne mooy tali Alliance Franco bi ah, fa laa taxaw nii gis ngeen sax ndox yaa ngi xala tooy yéen a ah, léegi tey gis nga nag Gambia bi moom kausa ani nilang kade dami dangasan sa banay sa agay ko yan la because taksi mom nu len neex lañ dee defee na waaye nag maa ngi leen a wax ne ba léegi rek yéen a ngi seetaan seen Promotion Nih mau ko dee defee saa yi nekk di ma fàtte di EPS International Limited news sponsor program ini. nii nga mau ikam mooy Tamba Nih pololin bukan loo leen bëgg rek ngeen ko def ab léegi rek am numa lii rek ci siyaare bi bu fant rek di toppa si Tambambalu show bi rek gis ngeen ko student yaa ngi noonu wàcca nit yaa gis ngeen ko because tey kenn pare prepare wutoon taw beeg yooyu ne dina taw ak yooyu mango yaa ngi nanu daanu gis ngeen ko rek Gambie yaa ngi nii comme nuñ ko def baaxoo di def taw bu rek gis ngeen ah nit dañ dee wax ne taw bi dañ daan wax ne foos taw bu njëkk bi dafa baax di suñ jëlee ndox bi dañ ko dee jël sangoo ko naan ko daf dee fecc loolu yëpp gars yi dañ ko daan def nag si foos taw ak yooyu ah, ba pare gis ngeen rek ak Gambia nag su taw bi jotee yu bari daf dee xam nga yéen Europe moom foofu taw di ngeen dem liggéey waaye fii nag moom dangaa gis ne nit yi dañ dee léet sax ngir dem leta dem liggey rek ngir taw beeg yoyu nonu so yoyu yeb daf dee am fii nii naan taw te ñu bare toy ci taw bi ñaka bi ni ko right now ni ñu bare taw te ñu bare toy gis ngeen ah right now ni ma ngi fi ni ci tali bi nga xamantene ah ay ci la taxaw nonu rek ci kaw tali bi ba léegi rek duma fàtte di siyaare bi fan bi seetaan Gueye Njoro rek saa yu ne rek bi ñu bëggee ak ñu tam ñu ngi a bëggee di leen wax ne Gambia yaa ngi nii gis ngeen ko taw bi commencé ne tey laa taw bi njëkk a taw fan yëpp mu doon ngelaw ak yooyu noonu si li fii nii ah, waaye tey nag tey mooy foos di mu taw meer nuyu na mbaa danga tawte billahi naka nga def naka nga tudd mère kaa ñu waxtaan si taw bi tuuti mère kaa ñu waxtaan waaye nga wax ma affaire taw bi tuuti ah moom dafa tawte gis ngeen ko suma mère ni ah moom dafa tawte gis ngeen ko ñu bare tawte man mii sax dama tawte ma ne ko man parce que extra bu ñu woon ne laaj dina taw fii nii ma ne ko gis ngeen ko tey la foos dee si taw bi ah ba léegi ñi nga xamante ne ñu fay topp Tamba Mbali show bi di am di follow Tamba Mbali show bi yéen ñëpp maa ngi leena a xam ngeen ko nak ñu ko def taami taw bu su jotté a fi ni xam nga léegi tey palantoor yi commencé di gina gay di feeral palantoor yi xam nga yëpp fi ni na nga taw de xanaa ah <laughs> ana palantoor bi ah, ah palansoor ngay jënda si ah waaye léegi tey yéen seen sareet jot de parce que taxi daraay fay moom ah. su tawee gars dañ de yokku ya, price iya. yeeg ya, yooyu yombut kay ok you see waaw maa ngi fay gis nga ko fii nii mu ngi taw waaye naaw nii am ñu abe ni si tali Alliance Franco boobu noonu ko ยิ่เห็นโตยก่เห็นดอกฮีปีนี้นี่สุดยอดเลยแค่เมานี้ผมกับมันก็โต่าจะสักไว้มาเห็นเห็นรุ่นหมดรมาเกี่ยนสิมีรักวันนี้ดิฉันดิปีนี้อัดเต่าปีนี้น่าจะเล่าประเด็นเลยดูรี่น่าเยี่มแค่มานี้มุดมุดจะเป็นคนอันนักใหญ่ก่อนมีเต่าไปซื้อเต่างงอยู่ใช่ได้เยอะมาก ba pare moto yi ñu dee nangoo daw pour gars yi tooyal seen lii bi gis ko ndox yaa ngi nii su pat yaa ngi nii tey la poos dey taw bi nii rek gis nga ko ndox bi mu xala sakkanee fii nii man ko ko fii nii gis ngeen ko fii la Gambie taw bi jotee nag ñu bari dañ dee am problème yi nga xamante ne am nga yéen ñu roog foofu ah yéen ñi wax foofu noonu xam nga yéen su bi jotee da dee génn dem dem liggéey ji faaw amul taw ñàkk a taw di ngeen génn a dem wañu na fii bari dañ si dee léeg ak yooyu yooyu yaa ngi dem liggéeyi tax dañ dee am ay xolam soor ak yooyu yooyu yaa ngi taw te Thank waaw gis ngeen ko comme ma leen ko waxee wala nga ñëw ubbi la bunt bi nga nga wax ñoo toog taxawal nii rek ñu waxtaan dama bëgg ñu waxtaan toujours ci affaire yi taw bi ah ah dia bett bett ñu rek de daf leen bett daf ñuy bett di fi ne nii gaa yaa ngee waajal de waaye yaa ngee waajal way fa yaa ngee daw gaa yaa ngi pli yaa ngee am nga wéen pli yaa ngi kontaan ñu ngi taxaw wes bi ñu ngi jaasee way fa mësul yaa ngi càng mësul way fa yaa ngi taxaw càng waa pàkk bi ñu ngi plan pour rey ñu ñoom ñu ngi ak si drive yi ak si drive yi ñoom ñu plan pour rey client yi ah naka ngeen plané pour rey client yi yéen taxi drive yi yéen plan

dañ bàyyi seen loxo ah lu tax nga ne poli dañ bàyyi seen loxo. waaye suñu yokkee foog la foriñ buñ yokk la moo tax. ñu yokk ñu ñu ñu dañ ko négocier rek. seen ah. gàmm yàlla ñu yokk. Hmm. eh gaynde. <laughs> waaw yaa ngi baax waaye léegi yéen tamit léegi seen tere dugal ci de. ah waaw ñu léegi yéen it ngeen commencé seen yokk bi yéen taxi driver yi léegi dañu dugg ci coono bi c'est que léegoo leen comme yéen suma hmm. ngi bëgg a def si yenn place yoo xam ne ne amul yoon wi hmm. mënu ma fa ñàkk dem te foog waaye foog ma def waaye dem bi ma fa def baaxul suma waaye foog ma def xanaa sànq yoon bi hmm. taw bu njëkk naka lañ ko daan préparé ah taw bu njëkk moom kay moom yaa ngi tàngaay bi comme démb tey rek comme su daan ñëw ñu koy waajal naka lañ ko dee waajaleeg yooyu di ko séentu mag yi dañ daan wax ne foos taw bu njëkk bi sax comme ndox mi eh, naan ko yooyu noonu sangoo ko dafa baaxal ak yooyu. waaw waaw tawul la ñu ne tawul la. Mhm. waaw ñu ne tawul la da nga defar da ngay raxas sa raxas sa biir bi tuuti. ko naanee waaw soo ko naanee nga jëlee ko daan xam nga ñu xale léegi ñu la wax ne biddaa la. ñu ne léegi biddaa la. biddaa la fi mu ne. waaw <laughs> fi mu ne yëpp tubaab bi moo ko yàq. ñu ne tubaab bi moo ñu yàq ñu la ñu ne biddaa la tubaab ñu te bu njëkk bi dañ daan taataan waaw dañ daan taataan di si sangu di si naan amali ma mi mu raxasoo bi ci li mu ne seen yaram yëpp génne jàngoro yëpp waaye loolu na am waaye léegi loolu amatu amatu mooy wax ne wax ñu ne bi daara fi mu ne kaw gi gisuma len waaye door nañ di ruuj wala ruuj nañ bu yàgg bu yàgg fi mu doon nekkee ji dugub bi nga ñëw kay xalaat ni jiyee dugub bi mbaadu am ni jiyee gerte yow mbaadoo dem bay ji man maa ngi bay soo so sama ngoosi gàllankoor ndax sa taxi bi mooy sa ngoote bi. waaw sama gi ngay bayee. rek Gambia jëm kanam. waaw comme ni leen ko waxee rek ah léegi gis ko ñu ngi fii rek ah si fi nga xamante ne ah moom mooy Alliance Franco noonu rek ah tey nag noonu laa génn rek di leen tambaambaalu rek di leen wax ne tey la foos taw rek ñu ne xaaral ñu génn gis ngeen ndox beeg yooyu. taw bi nag taw bi rëy la xam naa sakan moo tax ñu génn rek pour wan leen taw beeg yooyu booy bulo da nga fatu woon mbaa bagaasi tooy ah naka nga gisee foos taw bi ma ne naka nga gisee taw bi taw bi la ah, loo ñëw def taw waaw gis ngeen rek waaw gis ngeen fooy bu dem ah wax ne nag ñu leen a ziyaare tey nag ma ne Tambambalu suñu comme que dafa taw rek xaaral ma defee ko nii nekk ci tali bi génnee leen mu fee xew ak yooyu wan leen tali bi ah ni mu fa demee ak yooyu ma ne ko wan leen taw bi ñu génn rek waxtaan ak kai yi seet naka la poos kaw bi naka la <laughs> ko gars yi tuddee ci pare comme ma leen ko waxee ñu patooy ci nekka nii parce que taw bi dafa leen teeta taw bi bu am ko ko ko one time rek ah mu nekk taw bu réere so moo tax ñu bari dañ ko right now ba <laughs> man ma tooy ci kaw bi fii nii gis ngeen ko gis ni ñu nga ci yooyu noonu ah, gis dañuy xaar nag dañ nga sant ba taxaw ci digg bi ñu ñëw rek sa sant bi yëpp ah tilim ñu nekka toppatooy gis ngeen trafic bi fi mu nekk moom gaa yaa ngi waajal jaaykati palantoor yaa ngi waajal ah, ñi nga xamante ne ñooy jaay yéen póot yaa ak ah, fu mu nekk nag jànq ji sax léegi mees bi xam naa ne gaa yi di ko xala bi soo léegtoo mees parce que nga taw ne aa ah, ci cin la dee nekk di leen wax ne ba léegi rek ay yeneen ngeen seetaan seen Tambambalu show ak Gueye Njoro rek di leen ko defal rek every ak Saturday tey nag ma ne xaaral ma Tamba ni comme ni ma leen ko waxee woon rek ci digg bi rek am dañ ki nga xamante ne am alaaji Gueye boobu xamante ne moom ñaari xare ak ñaari xale yi te fekk loolu ko moom lañ naroon a indi yaayam fii waaye taw bi moo tax yaay bi mënut a ñëw def ci taw bi dafa rëy konoon nga dina ñëw fii nii waxtaan ak moom gën a leeral affaire yi taw baa tax ta ñëw ñu ko wax ne rek ah, masta affaire yi métti na parce que right now ñu mu ne mu ngi and ak domam ñu ngi faju ñu ko yobul ak tan ko xam nga rek ah parce que dóor ñu ko do dafa métti torop trop wax ne ak ah, gambia ñu fi nekk ni dañ wara bay seen xel bu baaxa baax parce que la nga gis ne léegi gaay dañ bëgg jël luwa bi rek am tek ko seen loxo suñu jappé ni rek ah, door ko dóor yi métti profito te dëkk bi dafa am luwaa soo jàppee nit da nga ko war a yóbbu ci luwaa yóbbu ko ci yoon waaye bul jël ci luwaa bi teg ko sa loxo nekk li nga xamante ne ah, ñu ngi koy naxaru am comme ni leen ko waxee rek soo leen jàppee nit yóbbu leen ko fi nga xamante ne am ñoom dinañ ko mun a naka ñoom dinañ ko mun a lii nii dinañ ko mun a borom bongo Có rombong không ạ? À? Cay Cay lên, cay lên Wow Ghê nhạt waaw comme ni ma ko doon waxee rek dëkk bi am na lên waaw boo leen jàppee nit na leen ko yóbbu si yoon après bàyyi leen dee gaawtu am tamit ñu koy jéggalu rek am social media bi tamit léegi ruumus bi bari na ku nekk nekk na ci sa journaliste bopp am dañuy jël rek am rek jël la rek binda dara li nga xamante ne su ko defee ñu naan social media bi la social media la ah mu nekk li nga xamante ne taaleen bi mu nekk li nga xamante am na solo lool ñu bàyyi ci suñu ah di wax lu ñu leer ah te di binda lu ñu leer loo gis lu la leeru topp ko fanaan ko da ngeen ah dama iya. bëggoon hmm. ah. ah. eh. hmm. ni ma jëlalé leen waaw mën ngeen ñëwé côté e bi rek eh. <laughs> waa gis ngeen ko rek eh. ah tey nak ah, dafa taw taw bu ñak bi ni lo naka ngeen ko gisee yeen taw bi xana sant yalla rek ñaan yalla rek ñaan yàlla rek nawet bi ñëw ak barke uh-huh. ñu fekke lépp uh-huh. am teraanga ju bari uh-huh. sunu réew mi ñu def yàlla defal ñu fi jàmm amiin mu yaatu lépp bari amiin yaa mën a dund kaa dem ci ron mbaar mi waadu <laughs> mango yeeg <laughs> loolu yëpp daanu nañ ah seng yi raxas nañ ma ne ko seng naaw nañ seng naaw nañ mango yi daanu nañ gars yi raxas nañ affaire bi waaye noonu la yéen ay ñan saf saf rek. saf saf. saf saf. waaw. taalibe sen Sëñ Tuubaa nag mhm. ba mu jeex kat ndax moom mhm. xaadim rek lan nam ahankay képp ngeen may ñu benn morto rek ah ngeen may ñu morto rek kan Gambian Talents Promotion ne ah. nit yaa ngi leen di seetaan directe Gambian Talents Promotion mhm. moom la waaw ku jigéen nga dafa la tudd moom Gaye Njoro Gaye cái Karena dia nyorok. Dia ah ini tahu. Ini tahu. Elektrik. ah daro, akayun dembo daro, asyik nasamba fal, bonam gajofal daro, daro. nga ci fan daaru daaru ah ka ñu dem ah Cheikh Massamba Fall borom nga ci Fall daaru Ka ñu dem ba daaru Cheikh Massamba Fall borom nga ca Fall Daaru waaw loolu ndeysaan ñu mënti def rek def loolu waaw ndax lu yàgg lu ne dëgg la maa la wax loolu ko ñambeeg maam xaasi maag seynabu xaasi maag seynabu waay doomi ndeyam ak baayam sëkki maamam waaw waaw lu yàgg lu ne dëgg la mhm. waaw di la ñaanal rek mhm. ndeysaan yàlla yokk wërsëg bi mhm. Ayo madilawo yoko lawo gawo yoko. Ayo madilawo yoko lawo gawo yoko. E adono bak ne gorenga ya joma nyao ne wo yuma. Wai patim ka ne gorenga ya dono bak ne wo yuma. Ayo madilawo kulamosawo. xale bi la doom ne gore nga yaa jomba ñaaw ne wuyu ma may woo ma delaw kula ma sa wala wuyu ko yaa doon baax ne gore nga yaa jomba ñaaw ne wuyu ma may woo ma delaw kula ma sa wala wuyu ko waaw wuyal leen ma suma taxi garage bi wa fatim ka ne wuyu ma may woo ma delaw kula ma sa wala wuyu ko defal ak ñoom dara bàyyi leen ma sama taxi garage ñàkk a wax loolu ndax lu yàgg lu ne dëgg la kontaan nañu mhm. yal na teraanga ji yàgg say loxo amiin yaa rabbi ci doole yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuuba amiin yaa rabbi yi bu neex amiin ñu fekke lépp nawet nawet bu njëkk buñ ko daan séentu lan la daan gaay di def ah nawet bu njëkk ah. buñ ko daan séentu ah. mag yi dañ daan wax ne foos ndox bu njëkk bi dafa baax ak waaw dafa baax moo gis nga waaw gis nga noon ñi nun ci tooyee moo tax ñu tooy ci nun ko nekk sa tax nga laal ci sax dafa am solo mm-hmm. première taw waaw loolu la doon def de baaw naan mm-hmm. denc ko bu ñu seen doom yi ku ñu sang la ci rayal la ci su ko dee feebar du bari ci seen yaram su ko defee duñ feebar ci nawet bi waaye léegi nit yi faratalaatuñ loolu léegi yëpp dañ na tubaab rek. yow ci rajo nga nekk. Mm-hmm. maa ci Gambian Talent Promotion. laa nekk. Gambian fi nekk ni àdduna la ñuy seetaan. àdduna kay ñuy seetaan. Mm-hmm. man ma tudd Ramatulaay. Ramatulaay na nga yokk yokku nu teraanga. ok boo yokk di dunya nu teraanga waay yokku nu teraanga boo yokkoo ci dunya dolli nu teraanga yal na nga yokkoo yokku nu teraanga boyokoo ci duniyaa dolli nu teraanga yal na nga yokkoo ci barke baay dolli nu teraanga yal na nga yokku ci barke Maodo dolli nu teraanga yal na nga yokku barke Xaadim dolli nu teraanga boyokoo ci duniyaa lang yoko, ko mayo ko ci dunya doo leen teraanga yàlla na yokk yokk nu teraanga boo yokk ci dunya doo leen teraanga yokk yokk nu teraanga boo yokk yàlla nga yokk yokk nu teraanga boo yokk ci dunya dolli nu teraanga yàlla nga yokk nga yokk nga yokk boo yokk ci dunya dolli nu teraanga yàlla nga yokk ci barke Xaadim dolli nu teraanga boo yokk ci dunya dolli nu teraanga kontana naa. yal na yàlla yokk dara yal na yàlla jambu jàmbu ji. nga ne noo tudd man Ablaye Faye laa tudd. Faye Biram Penda Walaan di ma woowee Bambalaay Bongoman. loxo yee bañ sax ndax sedd bi nu waaw fi mu ne nii yéen ngi sedd parce que da tawte. Ah, yi. si Gambia. waaw numéro. waaw. waaw yow Ramatoulaye Gueye Nioro mhm. yéen a jaamu yàgg yéen seen jaamu yàgg jërë ngeen jëf mënoon naa leen a oo ngeen ngeen ma doo doo leen ñëw waaye kontaan naa trop mbokk yi ba léegi di leen wax na rek ah waaw lii mooy Tamba Mbali Show rek ah, noonu laa leen ko doon defalee rek am ñëw fi nga xamante ne rek wax naa leen ko mu nii si kaw tali am fa laa koy jagleel nag képp kuy seetaan Tamba Mbaaw show bi rek ah maa ngi la koy jagleel Binta Konte siyaare naa la kooku di Moustapha Cissé Cissé ngaari ñar meew Mohamed Souare yaa ngi ci biir Xaadim sekkeen yi nag dañ bëgg a fu mu nekk nii sekkeen yi dañ bëgg a lekk tey ni nga xamante ne nii mburu amul sax gaa yaa ngay jooy fi mu nekk nii yaa ngay jooy bu baax a baax balde ban naa yow na sa mu yàgg <laughs> ah, Baye Fall Thiam ah, maa ngi lay ziyaare képp kuy topp Gueye Njoro rek a ah, di leen wax ne Gueye Njoro ak lay ziyaare di leen delloo njukkal dafa génn nii rek a si foos taw bi nii rek génn tàmbaambaalu rek wan leen Gambia bi nu ñuy dundee foos taw bi nii tey parce que dafa bett ñu bari am ñëpp a ngi tooy gis ngeen ko place yaa ngi tooy mango yi commencé nañ di daanu right now nii sax ah, man dama tooya tooya tooya tooy gis ngeen ko right now nii sax man dama tooy xet gis ngeen man dama tooy nekka waaye ma ne déedéet duma toog foog ma génn rek ak dafa génn lii wan leen naka la ñuy dundee suñu foos gis ngeen ko ak foos taw nag moom ah, mango yu dee daanu dañ dee bari parce que seenga yaa nga tilimoon fële nele dañ ko dee raxas xam nga ah, ponda bi bari woon mu nekkoon ngelaw bu rëy rëy rëy rëy rëy mu nekka lu nice ah ma leen ko waxee tey nag fii nag <laughs> tey fii <laughs> mburu amut fi tey wol nga mburu amut fi ah. naka la Kombo kay laa mun a wax Serekunda Banjul yooyu noonu ay yooyu mburu amu fi because gars yi dañ gerew a turu nu ma ko déggee a ñu ne dañ yokku <laughs> dañ yokku mburu mi soo boy ñu ne lu tax ñu yokku mburu mi ñu jël jaaykati mburu yi nga xamante ne ñoo nekk si mbeeda bi ñu dóor leen dóor yu méttee métti moo tax gars yi kompaloo gerew mu nekk tey li nga xamante ne ñu bare ngee jooy mburu <laughs> ma ne mu nekk li nga xamante ni baree ngee jooy mburu <laughs> te xam na ñu xamante ne waaye nag ah mburu bu fi maam bu njëkk ba maam yi buñ fi nekkee mburu amutoon li nga cere dañ daan xëy dooti cere ci ruy mi fële nele xam nga maalo tàngal yeeg yooyu su ko defee ngeen lekk ci ngeen lekk ci ba suur te maalo bu tànga moom boo ko lekkee dangay naan rek waaw comme ni ma leen ko waxee rek time boobu bu njëkk ba maalo bu tànga lañ daan lekk wala cere ak yooyu noonu xam nga ak ruy somanda mënoo ma ne ko somanda juuno mënoo binta konte xam nga ne yow moom war nga xam somandaa juuno mono beeg yooyu noonu a ah, gars yi farataloon ko mu nekkoon li nga xamante ne xale yi moom lañ daan eewu ku nekk jël sa kalama dóor si ba xoolee benn place waaye léegi xam nga loolu yëpp affaire bi dañ ko mën a naay bu nekk li nga xamante ne ah, yëpp dañ ko def affaire tubaab bu nekk ni ku eewu lekkuloo mburu tii rek ah, lekkuloo dara moo tax nag ma ne nag ñu delluwaat si cosaan te xam ne cosaan bi aada beeg cosaan bi ko bàyyi rek bàyyi nga lu nekk bu njëkk nit yi xamuñ mburu te ñu ngi lekk comme ni ma ko waxee rek ah ñu bàyyi suñ xel bu baax rek di delloo suñ xel te xam ne Gambia suñu réew la ñu ñëpp ko bokk nañ bàyyi yàq bi nañ bàyyi problème yi nañ bàyyi xiiroo bi ŋaaroo bi ñu bàyyi yàqalanta bi am na su nekk nii dëkk bi sàcca yi bari nañ fi lool lool saka right now ni ñu sàcca yi baree nii ñu dugal si si nawet bi time bi lañ dee gën a mun a ma ko time bi lañ dee gën a mën a profité nit yi so yaa ngi gis ñu baay suñ xel bu baax a baax xam ne comme ni ma ko waxee government bi mënut a def yëpp ñu dimbale government bi rek am su ko defee xam nga Gambie bi dem ci kanam ñu liggéey bàyyi wax bu bari bi bàyyi xiiroo bi ak ñaaroo bi bàyyi tribalisme bi xam nga dëkk bi ñoo ko bokk ñun ñëpp kenn moomut ko nekkut soosee ko moom nekkut joolaayu ko moom nekkut Gambie na ko moom. nekut ñun ñëpp ko bokka soo nekkee Gambien rek am nga kàddu si dëkk bi ñu bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax te xam ne Gambie suñ Gambie la ñu fonka luñ moom jàppalante suñ biir su ko defee suñ réew dem si kanam rek xam nga affaire bi yomb ak ñun ba bëgg a dee nga nga tamambaalu soo bi nii la rek xam nga dama lay ni toog rek wax naa leen ne lu nekk maa leen ko indi ngeen joroma su nekk la dee dugg si ruxa ruxaat yëpp foofu la dee dugg xam nga di génnee bagage ak yooyu tey ma ne comme que def nañ nii mu def force de taw bi rek ak mu taw bi nag taw bi nga xamante ne taw bu mag la njëkkee ko ngelaw xam nga ñu bari préparé wuñ ko woon ñu bari tooy xam nga ñu bari nekk ci ay jafe-jafe tooy xet comme sama maas yi dañ tooy fi mu nekk nii pour nga am moto problème la gis naa bi mu fi yaa nga taxaw 30 minutes léegi léegi nii ñu ngi ci taxaw ah, mënta am moto.

ñene ni nag xam nga ñu ngi daw laaxatu si bunti office yeeg bunti place yi nii lañ ko dee defee fay na jëlee ma ñële si camion bi ñoo ñu nga muuroo seen mbuus ak seen yooyu parce que <laughs> programme wuñ ko soo gars yi plan wuñ ko daa ngi gis fu mu nekk bi moto yi duñ leen nangoo em ci soo tooyee moto yi kenn du la em dañ lay romba time bi la dee jafe-jafe moto di am ak yooyu noonu bu ko soo tooyee moto yi kenn du la dee nangoo em fu mu nekk nii ñu ko ngi ñàkk gis nga moto nit yaa ngi egg ci kaw troog yeeg yooyu ñuy waaj a liggéey amuñ moto comme ñu taxaw ci liggéey camion yeeg yooyu pour ñu mun a dem nga ñële jël pour mun a dem tali bi mu ngi fees tepp ak ndox right now nii nag la leen de wax ni fii Gambia fi mu nekk nii jànq yi solu sax taxaw di ut moto rek benn moto jógee fële ne la paccax a ah, tooyal la gis ngeen ko dañoo ñëw rek bam dal sa ko defee nga tilim fi nga doon dem nga foomu ko right now ñu bari dinañ diggante dem liggéey parce que da eewu doo mën a dem liggéey fekk amuloo palansoor ak yooyu bala ngaa dem foog nga liit wala su nekkee yenn façon taw yi doo ko dee mën a lii foog naa ne bis taw mais bi gars yi dinañ change parce que attitude boobu noonu su ma amul palansoor du ma liggéey loolu foog naa Gambia rek a ko dese kon nag. mbokay di len wax ne tamba mbalu show la rek ah si Gambian Talents Promotion ni lañ koy defé say nek rek am di len wax ne show bi sonto moy EPS International Limited ñu ngeen leena xamé ci approu ab bi ñu def lepp li nga xamantene ne walu bu yone xaliss la ak jël xaliss wax na len ne so len ko buggee rek gaay dinañ len ko defal ak nu mu gën ak yoy kon a sét len EPS International Limited ñu ngi fofu nonu opposite américaine Embassy bi am nañ ay service yu baax a baax te ay doomi gambie ñoko mo moom gars yi ñoo ko moom ñoo ko nekkat ron te wax naa leen ne gambie nañ support luñ moom support suñ pool ah di leen bëggee rek képp a kuy seetaan rek aha maa ngi laay bëggee géej njooroon laa bëggee di la wax ne dalal ak jaama ci tambamba ñu ci tay nekk nekk first day taw fii ci Gambia ma ne xaaral ma defee ko nii rek génne rek tàmbaambaalu rek ci kaw bi génne leen tali bi nu mu tooyee ak ndox yi ñun tuuti di tooy tuuti di uut moto xam nga moto ñàkk xam nga palantoor yi di naawee fële da ngay gis kon tey taw bi nag dafa réyoon ngelaw bi la njëkkee ngelaw bu réeré xam nga te ngelaw bi taw bi senga yaa ngi tilimoon comme nuñ ko waxee banta yi daanu xob yi daanu mango yi daanu soo Gambie bi daal mu ngi nii gis ngeen ko tali bi am fees te par nga fu nekk ni tali baa ngi am ndox right now ni moom soo taxawee ci boori tali bi dama ragal sax ah nga tooy <laughs> so xam nga rek di leen wax ne ah, Tambambalu moom foo leen ko expect ah, naka foo leen koy séntu rek mu génnee feneen Ah, di defal yéen lii lépp luy xew ci Gambia bi rek ñu fas yéene di leen ko génnal di leen ko yëgal ah, di toppal li nga xamante ne ah, mooy lépp lu yëg rek dinañ ko toppal comme démba li nga xamante ne demoon nañ fële kële ndonkoona gannaaw bi nga xamante ne fii babin bi nekk foofu noonu gars yi boy si dañ ko dajji woon xam nga dajji ko sàcc seen machine yëpp ak seen bagage nekkoon li nga xamante ne lu métti si gaay la <laughs> taawal taawal <laughs> mu nekkoon li nga xamante ne <laughs> mu metti la soo gis ngeen ko su nekk ni nag kii laa gis ni ki nga xamante ne ah mooy CEO yi ah, ah, Gambia Nice bi aha moom tamit dafa taw te gis ngeen ko taa yi Gambia Nice borom Gambia Nice sama tekki moto bu baax la am gis ngeen ko Gambia Nice a nii nggak tahu deh. Lo nggak tahu deh. Nggak tahu sih di buat. Kau juga ini. Eh? dia lah juga. Kau nggak tahu deh. Saya first deh tahu bini. Expect kau nggak kok? Wano, expect kamu kawan wano lagi. Motor gila semua mau debi. Dili mau langsung mau Tahu bi korget bi. Apa dili mau semua debi? Post tahu bi mau nilam dia mel. Ah oke. Lain nggak amperuah gambian direct. Si first tahu bini. Yeah well, um, new new live it. New new kau fangkan tarik. New hamba mhm. pelan. Bayar ni fangkan depan sorsan. corgette yi baaxoo ñu seen corgette yi. Mhm. waaw. saa yi Gambien naay sangee dem ci kanam de. waaw saa yi da <laughs> kon Gambien naay si dox <laughs> macha allah ma ne ko non mu ngee dox bàyyi leen suy uy ma suy dox bàyyi leen dee wax ne doxul parce mu ngee dox moo tax xam nga moto bi ñëw na incha allah na si compagnie bu mag a mag tegu xam nga ba dimaan fi ah. comme gars yi seetaan yéen ñu nekk fële tamit ah. kii mooy si e ooyi Gambia naaj bi soo taraay leen ngeen dimaan ah, moo tisaat <laughs> léegi waaw baax na jërëjëf maam jërëjëf gis ngeen ko tay xam nii la Gambia dafa neex engrais foog bi tooñanteeg yooyu nonu ci la bokka jëlal ma ak sel ji bi ba wàcc na way dafa tawte ruusi daga <laughs> danga sàngane won palansoor bi <laughs> ma ne ko ni la rek Gambie dafa neex dañoo tooñante way naaw ni ma ngi tawte waaye xam nga rek foog ma génn rek dafa génn ñu bax wan ne luy xaw ci trafic mu neex mu ngi laas dina nag mu ngi taw man sax ma ngi tawte right now ni gis ngeen ma right now ni maa liggéey rek ah moo tax ma génn rek fu waxtaan ah, wax leen li xew fii nag si fii nii di Kairaba Avenue tali bi fii rek la baag <laughs> leen a digg ab yéen ñëpp ah di leen wax ne ah, Gaye Njoro nii laay def man rek ñaam beeg maam xaasimaa keenam doomi ndeyam ak baayam sëti maamam yaayi baayam ah cam pagarenga taga sa bopp fii legi legi léegi nii ah ba gis xam nga man nu ma leen ko dee waxee ku munta taga sa ah man dinaa la jàppale si sa taga bi maa ku munta taga sa booba sax man dinaa la jàppale si sa taga bi mu nii rek koy li ABS International Limited moo sponsor tambah <laughs> show bii nii ah di leen ko defal every Wednesday Saturday Xaadim Seck fu mu nekk nii moom ah, mburu amul si dëkk bi te tey moom xam naa ne Seck ni jooy nañ njaween yi jooy nañ xam nga rek wax naa leen waaye delluwaat leen cosaan soo demee wax xamuloo fooy jëm dangaa dellu fu nga jógee xam nga mburu mburu mi mburu bu amul nag cere jang fi cere bang fi ruy bang fi sama ndaa mënoo xale student kaay leen fi yéen da ngeen tawte <laughs> gis ngeen student si dañ wacce tawte comme nima ko do waxe rek mburu mburu su amutee nga delu fi nga xamantene ruy fi somanda juno xam nga ko ko somanda juunoo mono kalamaal di gaayoon la ya demu xam nga nga indi cere ji ñu raxas loxo yi dank si cere ji lekk maalo mu mi nga bo lekke ba pare so da nga nan rek do xiss ba tay mi an jaru sa nga yobul lanc soo demee office tamit tii rek nga nekk di naan wala kofi rek ah di ko naan su <laughs> ko defee xam nga waaye mburu mburu du la yóbbu fen soo waaye ba pare ñu taraay rek comme ni ma ko doon waxee si njëlbeen ñu bàyyi suñu xel buñ dee jël luwaa bi di ko teg suñ loxo dikka bi dafa am luwaa lépp loo fi gis wala xale yi door nañ di xuus si ndox bi comme niñ ko dee defee saamis bu lii xam naa ne yéen ñëpp a jaar si lii xam nga sangu taw beeg yooyu xam nga yéen da ngeen tawte da tawte <laughs> <laughs> so gis ngeen ko comme ni ma ko dee waxee saa yi nekk rek ñu bàyyi suñ xel bu baax a baax buñ dee jël bi di ko teg suñ loxo soo jàppee sàcca yóbbu leen sàcca ba police de ko soto di ko dóor di ko def jëf yu ñaaw muy sa borom bi Gambien xam nga nga dóor ko ba gaañ ko ba pare def ay vidéo pasaare ko si internet beeg yooyu noonu li nga xamante ne abadan la loolu baaxul xam nga nga nga yàqa image nit ki xam nga mu nekkoon ki nga xamante ne muy génn ñu koy joxoñ xam nga soo jàppee sàcc daal yóbbu ko ca police ya ñu xandul ko nuñ ko war a xandulee yoon kenn du ko teg solo loxo looloo tax ñu am fi luwaa bi pour ñu lijjanti ñu pour ñu régler ñu waaye léegi fi mu nekk nii ñu ne démocratie rek ku nekk di def lu la nee soo jàppee sàcc dóor ba mu dee soo gisee dara wala nga gis ñeneen ni dañ si dee jëlee advantage sax dañoo ñëw fekka dara rek fekk laajte wuñ sax xamuñ ndax sàcc la wala nekkul sàcc rek ñu daanu seen kaw dóor laa dóor a dóor a dóor bala ñoo xam lu xew comme lu daal Alaaji Gaye mi dëkka wal yundum gars yi dóor ko dóor yu métti yooyu noonu nga xamante ne nuñ ko waxee nekkul noonu sàccut xale ñu japp ko door ko door leen door metti right now nii maa doon wax yaayam sax mu ma wax ne mu ngi dem ak mom diko yobbu ay place pour ñu faj ko parce que door yi dañ metti xam nga lolu dafa metti ñu bàyyi suñu xel bu baaxa baax te xam ne Gambie ñoo ko comme ni ma leen ko day waxe say nek rek ah, ah, démocratie dafa and ak responsibility bu bare bare bari so dege ngay laacce man suma dëkka lan la ma defal yow lan nga defal sa dëkka bobu tamit amna solo lol lol lol lol xam nga parce que nu ko dee waxee government bi ñoo handle yop nit ñi ñoo mëna dimbalé government bi liggéey ak ñom xam nga so jàppee sàcca nga yobbu ko ci loi bi ñu arrange ko so gisé ñaari nit ñuy problème ñu dem a seet nuñ leen àttee bu ñew di ya xam nga ñu bayyi tamit comme ni ko dee waxee affaire tribalisme bi ak yooyu bu jàkka loolu amutoon Gambie ñun ñëpp ben lañ ñun nek nekk bokkoon ak bay fimu mu nekk yaangi bari bam nga soose yaa ngee seeg joolaa yi aku yaa ngee seeg saraxule yi pël yaa ngee seeg joolaa yi mu nekk li nga xamante ne am ñëpp a bokk fi mu nekk nii Gambie bi ñu a bokk koo xàcce rek xàcc boo dóor rek sa morom nga gaañ moo tax ñu war a bàyyi suñ xel te xam ne xam na yenn yi jaru ko next minute nga ñëw reyanteeg nit wala saagawanteeg nit waxante yu ñaaw toog si social media bi waxante yu ñaaw xasante xam nga loolu amul njëriñ xam nga comme Gambie bi nu ma ko waxee woon social media bi ñun kenn moomuñ ko Facebook Gambie kese moomuñ ko ñeneen nag ñeneen ñu ngi see use waaye ñu koy Gambie ni demee fu mu nekk nii dafa dafa naka dafa am doole torop torop Gambie ni ñu xam naa fi benn workshop taayele benn tubaab bi wax ne kana xamul Gambie Gambie kay moom xamee naa ko ci Facebook bi parce que ñun moom dañ jël Facebook bi rek nee la ko suñu boppam moom ko ku nekk léegi di def Facebook live. ku nekk di binda sa wool bi ah, barki démb a ngi nii fii lañ joxe rumeurs bi nga xamante ne ne dañ daax ki nga xamante ne mooy intérieur ministre bi fekk dàquñ ko time bu ñoo wax loolu noonu fekk mu nga taxaw ca biir national assembly bi di ansa personnel bi xam nga ñu toog rek génnee rumeurs boobu noonu ma gis ah, nit yi binda ko seen wool yi te ñu binda loolu seen wool yi ah, nekkuñ naka nekkuñ journaliste nekkuñ dara dafa leen neex rek ñu binda loolu seen wool yi ko defé ñu ñëw na euh, jox ko ñi nga xamantene ne ñooy ñi nga xamantene ne journaliste yi yëngu ci social media bi comme ñu gëna bay bàyyi suñ xel rek comme ñu ko waxé lépalo gis rek wala lépalu li rek taraayal ah, nga def sa ah topa problème bi xam nga gestu ko bala nga binda dara li nga xamantene ne warut wala amo ci lu la leer nañ gëna bay xel di gëna ñaax ñub rek di wax ne eh, Gambie suñ réew la ñun ñëpp ko bokka ku nekk soo yàqee sa moroom rek sa bopp nga yàqa ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax a baax ah, xam nga te xam ne àdduna amul solo àdduna yàggut xam nga yéen a ngi reyante foofu noonu next minute nga ñëw non ñun fii sax moom ñu ngi kuul ñu nekk fële ñu dee méttil dina ji gambeel lii gambeel waa ñun fii sax non fii moom ñu ngi kuul ñu ngi kuul bu baax a baax a baax problème danga koy fay waaye problème doo ko yokka xam nga next minute comme ñu seetee ko si problème bi Faraba bi nii rek mu tey xam nga ñu bari yàqula lañ si euh, life nit yi dee nañ si xam nga mu nekk li nga xamante ne dafa naqadi Gambie bu yëpp loolu mooy wane ne rek di firndeel ne problème baaxul soo commencé fu moo dem doo ko xam ñuy jaale rek képp ki nga xamante ne rek am génn nga ci àdduna di la wax ne yana suuf sedda sa ko fi nga jóge jógee a génn fi nga jóge fi nga jëm yana génn fu nga jógee xam nga di wax ne ñu bàyyi suñ xel su nekk ni ñu bari am nañ ci ay yàqu te yàqu yàqu nañ ci kële alkaali yu seer yooyu noonu lakka nañ leen si te xam nga loolu yëpp jaru ko nañ bàyyi problème lu nekk nañ ko solfee yar ak teggin gis ngeen buñ bërki démb ba rek ah si sondé bi rek gis ngeen ah tiim gom sa boppa protest nañ fi protest bu civilisé taxaw Westfield def lu ñoo def wax lu ñoo wax amul xeex amul xuloo amul xasante amul saagawante ñu def lu ñoo def aw seen yoon dem xam nga def nañ peaceful demonstration ñu bari ñu ngi doon wax ne xam nga suñ protesté dañoo indi problème indi loolu waaye def nañ ko ci peaceful yi loolu yëpp amul si moo tax ñu war a bàyyi suñ xel rek xam nga te xam ne Gambia bi ñoom ñun ñëpp a ko bokka te xam nga soo waxee nga jël xam nga nga yàqa def yëfi yàqa wala def yëfi jaxase loolu sa boppa la moo del si waan te xam nga di leen wax ne nañ liggéey rek ñu bàyyi wax ju bari ji bàyyi Facebook live yu bari yi xam nga instead soo def Facebook live sax kenn aayewut kenn bu mu def Facebook live waaye sooy def Facebook live defal li nga xamante ne bu mu nekk li nga xamante ne ah, dafa am big impact ci society bi wala dafa yàq diggante yi wala dafa lii wala def sa Facebook live rek taana kenn saaga ko ba sa xolam seeda te xamuloo kooku fu ko ndeyam juree xamuloo ndeyam xamuloo baayam nga taxaw saaga ko te xam ne loolu dafa ñaaw ku am kilifa du xaste ñu bàyyi xaste bi bàyyi ñiiroo ŋaaroo bi te xam ne Gambia dafa ndaw one Gambia lañ wax one love one people one nation buñ nangu kenn yaaxal ñu ko gis ngeen rek nag ah, Gaye Njoro yii laay def ak yéen di jégalu rek nag ci kàddu yi ah, tooguñ fi rek ngir ne ñoo daax ñu wax xëj na sax mënuñ dañoo jéem waaye ñu ngay jéggalu ci kàddu yi comme ni ma ko waxee tooguma fi rek ngir xaste wala ngir wax kenn du ko naxadi ngeen dégloo maa xel rek te bañ maa dégloo xol te xam ne léppalu lu ñuy def rek dañ koy teg ci yoon bugalu leen bégal lekk bugal li nga xamante ne ah, ñun ñëpp dinañ si jëriñoo te fii doomi aadama kenn mutut everyday ñu ngee jàng léegoo léegi nag nga am ay mistake léegoo léegi nag nga def li nga xamante ne mistake la waaye xam nga yu learn from your mistake dara leetu xam nga ñu bàyyi suñ xel bu baax a baax Tambambalu show bi nag nii la wax naa leen ko comme ni ma leen ko waxee every Saturday ak Wednesday rek ñu indi ki nga xamante ne ah dinañ mën a waxtaan ak moom mu leeral ngeen jàngee si yu baree bare xamee si yu baree bare Tambambalu show nag képp ku nekk rek wax naa leen ne war nga see mën a gis sa boppa i da yaa xam ministre nga i da yaa xam businessman nga i xam nga i da yaa xam koo ci munti doon xam nga ki nga xamante ne defal nga Gambia bi li nga xamante ne boo toogee dinañ ne waaw ko gongo dinañ jàngee si yow lu baree bari mën ngaa nekk ndaw am talent xam nga soo ñëwee fii si Tambambalu show bi rek dinañ waxtaan ak yow seetlu ñooy def ak yow moo tax nag ñu ne Tambambalu show EPS International Limited nag am ñoom ñi nga xamante ne am ñoo sponsor programme bi am du wax naa leen ne duma taayi di leen ko wax wax naa leen ne ñoom dañ ñooy génnee ñi nga xamante ne mooy coono yu bëree bëri a si dëkk bi fii nii wax naa leen ne léegi doo ñëwaat rek ñu ne la am comme network amut wala nga yónnee sa nit xaalis mu ne la courant amut moo tax mënut a jot xaalis bi wala xaalis amut ah, yooyu yooyu yëpp amatul fii ah, nañ ko soo demee dañ laa jox sa xaalis si lu mu gën a gaawee wax naa leen ne tamit ne xam nga ñuy génne benn service bu ees muy nduga service ah, nduga service bi nag comme ni ma leen ko waxee woon soo ko déggee rek mooy li nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi fële bëgg a jëndal seen parents si lekk yu baax Euh, lekk yi nga xam ne dañ qualité dañ set dañ baax ñu seggantal ko set ko ba mu baax jëlee ko si bitig yu nga xamante ne dañoo jaay good quality product euh, muy maalo diwlin soble lépp luy dem si wàllum dund rek gars dinañ la ko jëndal te lu si gën a neex gay yi dañ la ko yóbbul su fekkee sa yaaya ngi fooñi badibu kiyang jaara fépp fu mu si munta nekk rek ba laas village si Gambia bi sax gars dinañ la ko yóbbul ba foofu jox ko ba pare dinañ ci teg benn Ah, amount bi xaalis nga xamne mom lañuy wax cash back cash back bi nak mom moy nekkal li nga xamantene mom nga ngaa ndawal yàpp wala jënd mu nekkal li nga xamantene APS International Limited ñoko fi njëkk def pour nak seeti leen gaay yombal nañ ñëpp Gambien yi di leen wax ne comme ñuy sampa time boobu da nga dé wax jënd damal jëndal ma 10 bag ñu jëndal la five bag APS nak légui loolu yëpp dañ ko fi génné loolu yëpp ci nduga sa bi bokk dañu dem wax ak gaay bitigi jëndal la wholesale wàññi la bagaas yi xam nga ñu jaay la ko si njëg bu yomba ñu yóbbu la ko ba fi nga sampee amul fay amul kos dara loolu free la dañ la ko yóbbu fi nga sampee soo xam nga dinañ leen liyal léegi tappale bi jeex na ak yooyu noonu ci Gambia bi eh, ba léegi rek eh, di wax ne Tambambalu show bi nii la seen xarit Gaye di leen ko defaral tey nag ma ne xaaral ma génn rek si foos day taw bi nii waxtaan ak yéen gis taw bi nu moo demee xam nga ñu génn comme ni ma leen ko waxee bu njëkk a taami taw xam nga nit yi dañoo génn taataan si ndox bi sangu si a ah, denca si ku feebar balaa nawet bi di jeex ñu jox la si nga naan su ko defee yàlla may la tane waaye léegi loolu yëpp dañ ko bàyyi fu mu nii fu mu nekk nii ñëpp xam nga ñu pang si modern world xam nga dañ bàyyi affaire yi xam nga mag mag yu njakay loo wax ñu ne tabu la loo def ñu ne tabu la te xam nga tabu tabu yooyu nag am na yu nga xamante ne amoon na si njëriñ de ba léegi nag taw bi bàyyi da taw baa ngi gën a yokk nag su nekk ni dirimoo yaa ngi génnee si pax yi di di di naka ah, di daw xam nga taw baa ngi gën a yokk nit yaa ngi wàcca liggéey trafic baa ngi xalaxaat ndox baangi bari ñi ya ngee tawte ñi ngee toyal nit yi ñu ngi climal nit yi easy wut um, mané nak xaram ak gene rek waxtaan ak gene comme ni ma leen ko waxee tay nak ci ma warona am moy ki nga xamantene boy bi nga xamantene ne dañ bindon ci social media bi ne dafa sàcce ñaari xalé ak ñaari xar ñu dooroon ko door yu metti door leen door yu metti ñom ñaar ah, kenn ki tudda nag alaaji Guèye ah, moom laa waroon am yaayam nak waaye yaayam right now nii mu ne xam nga mun ta ñëw ngir taw bi ba mu ngi ànd ak doomam xam nga mu ngi koo mu faj parce que dóoruñ ko dóor dafa métti comme ma rima euh, fàttaliwaat leen rek bu baax a baax ñu bàyyi suñ xel bu baax a baax kenn bu mu jël luwaa bi du ko teg sa loxo all lindi the name of démocratie nit ñi ñoo sonn si démocratie Gambie bi nii te xam nga loo wax ñu ne démocratie su la neexee nga jàppa nit dóor si mbedd su la ne tey nii soo gisee borom mburu yi geraw ñu bari am naka la tuddaati borom boori Tajistan be ne le borom mburu yi de nekk si saykul bi ñu ne gars yi day yokk mburu yi booy si fekka leen fa leen dóor yu métti xam nga jël mburu yi di ko tuur si suuf mu nekk li nga xamante ne ñoom ñëpp complot moo tax gaa yi lakkuñ mburu tey because saako fori ñu waxoon ne 800 la léegi ñu yokk ko 2008 ñu delloowaat ko ci seebin dalasi bi foog naa ne benn dala dalasi différent warta tax xam nga ñu créer problème boobu noonu ba nga xamante ne tey ñu bari ah, si mburu meeg yooyu lañ ko yaakaare ah, ñoom dañ dee jaay mu nekkal xam ne mburu lañ suñ lekkul mburu lekkuñ dara ñu tax ñu ñëpp amul mburu tey ah, kenn xamul ndax dina continuer wala du continuer waaye nu ma ko waxee daal mburu mi su jeexee nañ dellu ci ruy bi fruit baa fi cere jaa ngi fi maalo bu tàngawoon fi ñu delluwaat cosaan rek ma ne nag ah, ma ñëwaral leen fii tey fi nga xamante ne mooy Kairaba avenue bi rek si tali bi noonu boole Alliance Franco noonu rek parce ay IEC yooyu si kaw tali bi génnee leen wàllum taw bi ak nu fa demee woon fii rek lañ koy defee saay nekk ah, di leen jox di daje ah, ba samedi ma indi laat leen yeneen ci yeneen ñu waxtaanee képp ko leen bugg a ma indi sax yéen ñuy seetaan. mun ngeen koo wax ah, ma ma leen ko ah jooj moom time boobu xam naa dukkulaa nga daan ne woyee <laughs> suba xam nga waaw dukkulaa dukkulaa tamit amoon na fi njëriñ time dukkulaa maa ngi ko fàttali ko time primary school suñ demee food bu dukkulaa la woon <laughs> ñu bari ñoo daan lekk dugulaa <laughs> waaw yaa ngi gis dugulaa tamit mu ci biir dugulaa beeg sànqal yeeg yëpp mu ci biir su ko defee rek xam nga boroom mburu yi tamit ñu gaaw rek delluwaat defaraat seen mbur yi te xam ne fii dëkk bi ñu bari mënuñoo dem mitaan mburu tey compileen yaa ngi bari ba bugg a waaye xëy na ëllëg gaay dinañ lakka mën na ko ëllëg gaay dinañ lakka bu defee rek ñu gën a bàyyi suñ xel bàyyi wax ju ñaaw parce que wax ju ñaaw dëkkut fu mu jëm fu mu jógee la dëkka ñu xam ne ñun ñëpp Gambien lañ ñu bàyyi yàqante bi ñu bàyyi xasante bi xam nga te liggéey suñu réew mu dem si kanam ñu ñëpp beta Gambie lañ bugga kenn gënta bugg a sa morom ñu ñëpp Gambie bu dem si kanam lañ bugga te suñ moo tax ñu war a bàyyi suñ xel bu baax a baax rek am di liggéey bàyyi ñiiroo beeg ñaaroo beeg xam nga rek comme niñ ko dee waxee saa yi nekk rek xasante beeg yooyu noonu amut solo amut solo loo tey soo xasee xas nit ëllëg nga ñëw tasee moom nga rus ëllëg nga ñëw juboo ngeen rus ba pare fii nag mos li xasante xarit lañ woon xarit lañ woon xarit lañ woon deflante lu nekk next minute ñu ñëw reyante xam nga loolu lañ war a bàyyi Gambie suñ Gambie lu ñu ñëpp ñoo ko moom Lamin Daabo maa la laa ziyaare di la wax ne comme niñ ko waxee rek Gambia is our Gambia nice to be nice lañ xam one Gambia feel no pain gain stress ah lii lañ bëggoon am Gambia bu ees ñu Gambia Yaya Jammeh dem xam nga ñu am president bu S, am Gambia bu S, xam nga nek si Why waye still am ñu Gambia te ñu nek si jama sa tay bari nañ am robbery bari nañ xam nga door ray nit yaa ngi bari nga te lool yëpp ñu ni neen ñokoy defante suñ biir all in the name of democracy ha? Ah? te democracy dafa and ak responsibility nañ bayyi democracy bi kula neex taxaw saga nit su la taxaw xass nit bu la neexee taxaw teg ci daram bi li nga xamante ne amul bindal la neex wax lu la neex loolu yëpp nañ ko bàyyi xel yow sooy bindal si nit li nga xamante ne mooy loolu kookoo ngi am ay famille xam yi kon nag xaar leen rek ma sabat leen fii ah, jox leen dig daje rek ah, ba beneen bés bu ay seen xarit la woon ngeen jooro ñambeeg maam asimaak ah, seena bu doomi ndey mag baayam seti maamam yaayu baayam nekkaloon leen fii si seen Tamba Mbaalu Show rek ma ko kon nekkaloon leen fii si ten Tamba Mbaalu Sow dafa taw nag loolu moo tax ma taxawee nii parce que dama tooy fi mu nekk nii sama bopp bi sax dama ragal mu métti dama tooy xep xep xep waa taw bi bàyyeegu waaye génn rek bëggale naa wan luy xew si dëkk bi rek moo tax ma ne xaaral ma génn fii nii wan leen ko gis ngeen ko fii ba Guerva bi ñu dem boori kiw sal nele yëpp ñu ne ko gis dafa tooy ngeen taw bi num bare ndox bi num bare gis nga ko nit yaa ngi dox ñoo am moto moto yi so toye duñ la ep ma di Cissé ngi noonu di romba MPV ngi noonu di romba gis ngeen ko <laughs> mana ko gis ngeen ko mu ngi noonu di romba mais nga taw de ko <laughs> jógee ni ah ah nga wacce liggéey nga taw de ah tey de ñu fa taw de wala ko taw bi dafa bette mu nga taw bi dafa bette yéen a ko gis gis ngeen ko gis ngeen ndox mi nu mu baree si tali bi ndox mi bari na fi mu nekk nii moto yaa ngi cũng nghe cả ni các chú mà ni sao nó ngồi mà ép man because man đã mà thôi mà ra gai nó ngồi mà ép không là nó mà ra gas mà video gì đấy mà bỏ vào meti wai gambe talent promotion để rek ni lañ ko dé déféré say né ka rek a bugalu né askan gi rek motax ñu né ñu gëna fi ci taw bi wanen leen lu fé xew gis ngeen ko fi ba bori west yu yëpp nga toy gis ngeen ndox yi commencé nañ taxé ngay am xam nga taw ba ngay gëna rëy nak a cái fi la koy emale ba benen ba samedi benen tamba mbali so ñu jox leen dig dajé parce que right now ni toy na xep xep xep xep sama yaram ba ngi toy nii la won rek di bëggee képp ak ki nga xamantene ne yaa sétan ah Mustafa Gueye Ndioro maa ngi laa siyaare <laughs> ma ko Moustapha Gueye Ndioro maa ngi laa siyaare yàlla baax na dinañu ci yoon yu baax képp ak ku doon sétan rek maa ngi laa bëggee Lamine Dabo maa ngi laa bëggee li leen wan ne Guèye Njorong leen laa bëggee yéen ñëpp di bëggee képp du ma fàtte f bi nga nag ak ñoom ñi nga xamante ne ñoomaay falal di ma defar saa yu nekk nekk foofu à sama njaay highway ba foofu rek jàkkaarloog boori eltin ba noonu rek ah du ma fàtte ñooñu di leen wan ne ñoom ñoo ma dee jaar si merci baax yi njug yu baax yi soo leen buggee wik lépp loo leen bugga rek gaay yi ñoo la ko ñoo defaral ak yoyu képp kuy bëggé gey njooro képp kuy défar gey njooro rek géey njooro la wax ne ah gàcce nga laa ma na ci yeen ñop jallo alpha jallo jéri ma ngi lay nuyu caam baabel demba cham fallu cham ziaré na la ci tamba mbalu suuf nga rek ni la ni lañ koy défé fay nek rek ñun Gambian talen kenn du ñun di leen siyaare yéen ñëpp di leen wax ne ah nii la rek nañ jaamoo nekk benn Gambie suñu réew la kenn mënu koo ñoo boole ñu bàyyi suñ xew right now ni gis ngeen ko Gambian Talents laay ñëw sa bunta ba suñ meel fii sax dafa tooy ñun amuñ yoon duñ am yoon dañuy jéegi ali nga ko ñun amuñu yoon dañuy jéggi tali gis ngeen suñ buntu office baa ngi nii tooy xep xep ma ne ko suñ buntu office baa ngi nii tooy xep gis ngeen tali bi fii lu si tali baka daañ am kon jox leen dig daje beneen yoon ngeen jëf right now ni dama koy fekk waaye liggéey bi ko laaj rek ma ne xaaral ma génn rek comme ma leen ko waxee rek génn rek ci fi nga xamante ne mooy tali bi wan leen ko taw bi naka la taw bi ak trafic bi ñu mel ak yoon yi yooyu ñëpp a taw teg so comme ni ma leen ko waxee woon rek a fii laay am ak yéen ba beneen waaw xaaral ma jox sama naataango Fat Samba rek moom mu wax kon yes fi mu taw bi it's just nice here in Gambia Eh, di la wax rek eh, Gambian Talents ñun we are here for the people eh, li ba la ne lu nit yi bugg a rek fokk ñu def si xam ngeen ne nag Gaynjoor moom tambaambaalu day tambaambaalu way nak tay mi ne foog rek ñu bolé ci taw bi mu tambaambaalu ak askan bi ngeen gis ñum num naagisee ñum neexee ba nga xam nak nag ton taw bi parce que tay wone wutoon ne sax mu dafa taw tay ku gis asaman bi rek li nga xam ni mu nuru luy taw bat comme ko do waxee rek bu moy ñëw sax ñun yëguñ ko so lang sa promotion nyo ne utol nañ la paransoor dégg nga so dañu utal ñu ne suñ staff yëpp paransoor so di wag ganun support sa kadeferek. you know everything gonna work out right so si biir taw bi la si neka nekk fu ni Tami lang la ñeneen ni du dem liggéey ñàkk dem liggéey ñeneen ñi nga xam ne waral ligay. Tami lang la idol ah ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi amee moto time bi sa Muto, yung di si biir bi you know ñu amir feeraay sorry to call it I know hamna naa ne marché muy ñaay bi dina ne maa leen a sonal si yëfi feeraay yi ba den ñi nga xam ne ñoo amee moto yu gudda gudda yi you know uh, ñoom duñ am much problème time bi la taxi driver yi di stress mm-hmm. maa ngi waxtaan ak benn taxi driver léegi yi jës rek romba la taxal sa yaram bi yëpp you know loolu yëpp dañ ko taw bi daf dee nee si ñeneen waaye tam daf dee stressful nga gis ñeneen yoo xam ne suma marché sa kër bi xëj naa naka la kër bi mel naka la ne waxee loolu noonu ah, ndax mu ngi dugg si sa biir néeg ah, you know yaa ngi soona gis ngeen keneen dafa mel dafa waaj a liggéey rek ak Anthony Jammeh talent bi so nii rek la moo nekkee eh, rabu ah, fu mu nekk nii li nga gis nit ku amee paransoor. Mm. nekku ne nit yi. bi daf leen beeta taw bi daf leen beeta. te lu la beeta mun la mm. soo loolu la di wax nit ne um, thank you very much Gambian Talents lii rek la munal askan bi ba léegi rek. taxu du betah ñu bàyyi liggéey bi foog rek ñu si askan ah indil leen yeneen ak oh dafa mel ni fii moom mooy ñëw fële ne na si interview bi nga xam ne mu si interview bi ah laajte ko ah anti andi hadi ñay ñu ngi laa nuyu ay noo yaa ngi yaa ngi gis gis gis sun ah fu mu gis naka leen da waxee poto poto a ah, ak clip ak yooyu noonu yëpp dafa nekk si street bi soo gis ngeen kii moom dafa mel ni moom lan la sol nii loo sol nii nu mu tudd ah? hello. raincoat nga sol ah ah yow am nga confident na Jackie Gambian ne ni sa sol raincoat <laughs> naka nga def. noo tudda ah? Favour naka. oh kii mooy Favour xam ngeen ko moom it si la bokk te moom yi daf dee daf dee lii naka la. daf dee prison show mu ngi war a amee show bu ees bu ko wax gars yi balaa ñu ko xam ramu kaay nga waxtaan ak Favour kaay leen fii Favour lu mu sol nii ramu. bu la na bu gaata. waaw. I ah. jeex waaye gis ngeen ko tamit dégg naa tey Farafenni dafa taw waxtaan leen yéen ñaar yi na xumba na xumba Wow, para feñe taw na woon tamit ni naa taw na taw bu mag ah, waaye te ñëpp lii lañ doon séntu rek ah, di leen wax ne rek ah, taw bi nii baax na lool parce que fan yi fii dafa tàng toro. waaye nag ñun nak fi ñu ñëpp a bu a because suñ courant bi dañu bañ mu demati julli bi bu mu doon ñëw tout de si courant amutoon ñu ne ngalaw bu amul nonu rek gal bi yëngatu rek mo taxone courant <laughs> amul soo a ngi doon bi gis ngeen gis ngeen dafa am borom soor waaye mu ngi mu ngi daw ndax bi gis ngeen. ah waajal na taw bi broda bi waajal na taw bi. waaw am na ñu bari nag ah recette la ñuy léegi lañ jënd palansoor nii. parce taw bi yaa nga nag mu ko doon waajal.